mooy APR ci boppam mu amut maanaam ay dóorkat yu topp Macky sàll gëmuñu dara gëmuñu Macky Sall sax. Mm-hmm. moo ci nekk te lii ma la wax ni firnde la ci. gëmuñu Macky Sall gëmuñu ko. léegi nag li ma waxoon treize. waaw c'est dit maa ko wax. Mm-hmm. te amul deltu gannaaw. amu ci dellu delluwuma ci virgule. te dama koy wax ne ko. maa ngi xaar ma pelent ma. parce que li may wax man bu ñëwee ñu dem ci yoon maa ngi moom. dama koy xamal benn affaire nag man xeex ak man yombul. Mm. waaw yombul waaw. lu tax xam nga moom nee na treize la. waaw bu moytuwul douze lay doon. douze day day wàññeeku. waaw waaw au lieu treize fay mais douze fay lay tudd. bu xëyee rek man ma wàññi benn point bi. gis naa gis naa Antoine yónni gone. Antoine. naan waaw man awma kër France maa ko wax am na ko. jabaram ak ñaari doomam yu góor yi am ña nga France fan dëkk moo ko moom te Antoine dama koy dollil li gën a dee. Hmm. mooy ki koy wat. jërëjëf wat Antoine coiffeur am. Jóob la sant du ma ko tudd naa ko bàyyi noonu. Hmm. ma nga AIBD fa la ko wutal salaire. coiffeur Antoine. waaw. ma ngi may wax ñu naan sëñ Saliou ko may kër sëñ Saliou amul étage di mayeb étage te da ngaa mas a gis étage sëñ Saliou. waaw mu naan kër gi sëñ Saliou ma ko may. yow sëñ Saliou daa am étage ma mayeb étage. sàcc tabax kër ba noppi naan sëñ Saliou ma ko may <laughs> dañoo war a tappale quoi gis nga Antoine ki ko daan jàngal arab yi arab yooyu muy liifantu. waaw ab dëkk la ko jële ci dëkk yi yóbbu ko ba intérieur jox ko bureau di ko fay. mu koy jàngal mu koy jox ay arab pour muy góondi kilifa diine yi di nga wax lu mu gëmul. Hmm. kooka sax da ko wutal biro bureau coiffeur am ay dee lay liggéeyee président Macky Sall mii ab coiffeur am mi ngi fii derkele chargé de mission la ko def. sa démission waaw waaw. coiffeur Macky. Macky Sall. ñii dañoo yem nit ñi. Ablaye Dieye. waaw. damay bañ a yëngal këram soxna yu ndaw yooyu mooy soxna yu ndaw yi gaaw a dañ yooyu. bi mu ci am na ci benn boo xam ne nii. da ko jox euh, salaire AIDB. soxna yu ndaw yi kay létt ndaw sa. Hmm. kay létt ndaw sa. waaw soxna yu gaaw a yàqu yi yu gaaw a dañ rek. <laughs> mooy yombalonk yombalonk yi. <laughs> ay AIBD la ko wutal salaire. li ko fay ak kay litt ndaw sax ak kay waaw bi mu demee ba décret génn ne ko da dem mu xam ne bu fi bàyyee lii bu bu ba bu ba ku koy remplacer dana ko gis mu antidaté ko wutal ko fa euh, contrat. moo ko vingt et un vingt et un yëpp am naa seeni i tur am naa seeni i sant. waaw Ablaye Dieye. nii lu wér laa lay wax. amul benn boo ci xam ne nii góor dana taxaw fii weddi ko. ku neex demal yoon ku mu neex demal ci plateau yi maa ngi fi toog boo ma waxee ma tontu la boo ma woy woy ma wuy si parce que li may wax leer ñoom dañoo fooyee dëkk bi def lu leen neex sàcc tappale ba doyal ba pare nag bëgg a taxaw fii naan bu leen ko wax may wax mu naan dem leen ngeen dindi askan wi ci seen jafe-jafe yi nekk jafe-jafe yi kay mooy. ay nit yoo xam ne ay locataire la ñii amuñu dërëm. ñu fal leen ñu yor ay millions yi millions. waaw ah di tëdd ci askan wi jigéen ñi amuñu luñ fajoo. lekkuñu naanuñu fajuwuñ nga ne léegi loolu loolu wax loolu kay mooy dimbali askan wi mooy li ngeen ñu sàcc ngeen delloo si ñu ko ñu dunde ko waaw loolu lañ bëgg tris mi naan ma demal wax jafe-jafe askan wi waaw na xam ne ci jàpp ko moom nangu nangu alalam ji loolu ci lii jafe-jafe askan yi la bokk waaw loolu laa koy xamal ci dindi jafe-jafe yi la hmm. macha allah jërëjëf Cheikh Bara kon xam naa ni ah, treize nga noonu euh, macha allah Cheikh Bara ñu ñëw ci point bi nga xamante ni bii defe naa ni euh, jamono jiñ toll yi gis nga média yi am na média yu bari yoo xamante ne bi dafa mel ni daal dañu jékki-jékki def ma taxaw taxawaayu opposition. Mhm. Euh, di critiquer nguur gi di dugg sax li xale yi di def def ay vaar ak lu ne ñu di ko def. Mhm. ngir lekk jéem a wane ni ñii ngeen xam ni ngeen jox réew mi euh, munuñu te loolu nekkoon taxawaay boo xam ne nit ñi doon ko séentu ci opposition bi taxawee noonu. Mm. waaye média yenn média yi taxaw taxawaay manipulation boobu ak kii yeeg. wax yi nga xam ne moo ci am noo jàngatee mbir yooyu. waaw mbir moomu de pour ñu jàngat ko. Mm. dafay am ci lu mu dellu mooy dañoo jóge ci benn révolution mooy nguur gu bees dafa ñëw. Mm-hmm. nguur nag ni mu ñëwee musta am loolu ci Afrique. waaw bay am ci Sénégal. Mm-hmm. bi mu amee nag ku nekk xam na ne kon maanaam. Euh, maanaam carte gi day dañ koy baatarawaat séddalewaat ko. Mm-hmm, rëbbalaat. waaw mm-hmm. maanaam carte gi dafa nu mu tudd dafa wëlbatikuwaat. Mm-hmm. wëlbatiku gi nag dafa am lu ci bari luñ mat a jàngat mooy jomaay dafa def ay acte acte yooyu nag. dafa am ñu muy arrangé. am ñu muy dérangé. ñan lay arrangé. mooy askanu Sénégal ñi muy dérangé mooy ñi nga xam ne duñu ay patriote askan bi taxu leen a jóg. maanaam am na intérêt yi beneen réew. bu leen intéressé moom lañ nekkal ci dëkk bi. Mhm. ñu di ko défendre. Mhm. parce que nañ xam ne onze ma onze septembre bi mu jàllee Amérique. dafa wax ne pour mu yokk service secret am dafay tijj ay média pour mu maanaam dafay jaar ci RC yi léegi dañuy am ay média loolu def na ko càdd geeg fu baree baree bari am na fa loo xamante ne da koo taxawal. waaw te loolu France ci moom la ko jëlee. ci moom la ko France jëlee. voilà gis nga média yi. da cee am yoo xam ne nii Sénégal moomu ko. Hmm. ay sénégalais moomuñu ko. Hmm? waaw am na ci ñoo xam ne sax ci service renseignement France lañ bokk. bàyyi te lu wér laa lay wax. média yi waaw parce que dinaa la ci ñëwal saa loolu damay jàngat lu leer parce que xam nga euh, euh, question politique la boo xam ne dañ koy jàngat. gis nga hmm. gis nga Sadio. waaw Diomaye dafa def ay actes. yoo xam ne suñ ci delluwaatee. waaw dañuy xool ba xam actes yi mën naa indi coow lii. mais act yi dafa bari act yoo xam ne jomaay def na weer ci nguur gi. waaw lim jëlagul ci ay décret. lim jë lim defagul rek bi mu faloog léegi. maanaam boo xoolee amu ci benn boo xam ne da nga ne lii ci intérêt jomaay la dellu wala lii ci politique la dellu lépp ci njëriñul askanu Sénégal la dellu. Hmm. mais est-ce que mi ngi dellu ci askanu France wala ñu mel na moom. léegi bu delluwut ci askanu France est ce que ñi France am ci réew mi dañuy toog di seetaan jomaay muy yàq seeni i intérêt wala dañuy jóg xeex ak moom hmm. dañuy jóg xeex ak moom c'est euh, loolu li la ci wan benn affaire mooy euh, Basiiru Jomaay maanaam dafa toog hmm. dafa bari loo xamante ne dafa ah, dafa buñ bëggoon a jàngat jomaay dañ koy jàngate noonu mooy dafa falu président de la république mm-hmm. laata muy falu dafa def lu benn politicien mës ta def mm-hmm. mooy def déclaration patrimoine mm-hmm. publier ko waaw nel benn kenn mosu ko euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel te di ñu teewlu saa su nekk rek ci ay xibaar euh, dañuy daal di dellusiwaat ci mbirum ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bara Ndiaye ku nekk xam na que ni euh, jamono bi ñu toll nii daal dinay def ay révélation yoo xam ne baree baree baree bari la fii ci biir réew mi di Sénégal ak Euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko te ñu bëree bari ñii d'accord si ñii d'accorduñ si lu ci mënti am que ni euh, war nañoo daal di def li nga xam ne moom moo di ab taxaw seetlu te taxaw seetlu boobee du lenn lu dul euh, mbirum ki nga xam ne moom moo di Thérèse Faye Diouf moom mii nag gannaaw euh, ba ñu gisee que ne dot naa daal di jàppalanteeg demlanteeg ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bara njaay euh, ci dossier bi nga xam ne ñu baree baree baree bari jàpp nañ que ne bokk na ci dossier yi nga xam ne ñoo gën a tàng fii ci biir réew mi te muy wàllum suuf wàllum alal wàllu ger ak ya ca aju ndaxte tamit moom mi Cheikh Bara Ndiaye ci ay kaddoom jàpp nañ que dëwul benn yoon li nga xam xam ne moom moo di deuxième que am na droit mu taxaw euh, jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di Thérèse Faye parce que tamit kii di président Sall euh, dafa am lu nga xam ne rek daf ko fee bàyyi fii ci biir réew mi te li mu fi bàyyi nag euh, bokk ci li nga xam ne rek lu mën a yàq am réew la donte le ñu si baree baree bari dañoo gis que ni tey am na si ñu nga xam ne jarul ñu leen di topp mais nag bari na si ñu nga xam ne tey war nañ leen a topp ku ci mel ni moom mii di Thérèse fay donte le maître El Hadji Diouf mi nga xam ne ñu baree baree bari ñi ngi koy sànni xeer wante nag ci lamiñam rek la yem ndaxte moom it ñu jàpp que ne kat bokk na si ñi nga xam ne ak lu ñu mënti wax tamit euh, bu fekkente ne lu dellu ci wàllu bien la ñu si bari remarqué wuñ ko te tamit seetlu ko am na nag ñu nga xam ne ba jamono bi ñu toll nii yoon dina leen daal di woolu lan moo tax yoon war leen a woolu parce que tamit dañoo bokk si ñi nga xam ne rek war nañoo daal di mën a dikk ci euh, kaw taabul ji indi ay leeral bu baax a baax a baax a baax ci li nga xam ne rek moom moo fi jot a xew eh, ci diggante ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bara Ndiaye gannaaw ba ñu ko daal dee dalal rek ci plateau bu Walfadjri eh, ku nekk miin na ko ci talk show bi nga xam ne mi ngi koy faral di amal alxamis bu jot moom mi nag ci nguur kii di président Sall gis na ne njuumte lu baree baree baree bari daf see am Hmm, jumte yooyu nag eh, bokk na si mooy eh, di jox ay poste ñoo xam ne eh, yeyoo wuñ ko di jox ay poste ñoo xam ne yelloo wuñ ko rawatina nag ñoo xam ne rek Sénégalais yi dañoo jàpp que ni kat ñoom ñooñee bokkuñu woon ci ñi nga xam ne rek waroon nañoo mën a daal di jël benn benn benn benn responsabilité fii ci biir réew mi te loole mën nañ ne li mu yàqal kii di président Sall bari na lool lool lool sax euh, ci mbir mi tax na am ñoo xam ne rek daal di nañuy daw deuxième këne moom bu fekkente ne woon ne kat yeneeni milliards mi ngi woon ci biir réew mi. mën na ko lekk ba askanu sunu gaal duñ ci gis seen bopp ba tax nag ñu daal di dellusiwaat gannaaw kàddu Moustapha Diop yi nga xam ne yëkkati woon na ko fi moom mii di Cheikh Bara Ndiaye daf ko daal di feeluwaat rek lim ko feeloo nag du lenn lu dul di xam xamle kenekat am na ci ay dossiers yu nga xam ne. bu fekkente ne état bi tegu ko si kaw taabul ji fi la nar a jaare sénégalais yi ñoom seen bopp ñoo leen di bàyyi ndaxte kat bu fekkente ne moom président Ousmane Sonko daraan faral di génn lu ci bëree bëri bu génnee rek Euh, di xamle que ne moom yor na ay dossier euh, te tamit di yëkkati loxoom di yëkkati baatam que ne yi nga xam ne rek moom moo fi nekk jamono bii ñu toll nii dafa nekk ay dossier yoo xam ne man mii war naa see teg loxo te tamit war nañoo lijjanti seen borom que ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ leen di topp kon nag. comme que dañ leen di topp war nañoo def le tout pour mën a xam dossier yooyu fan lay mujje te tamit booba dafa tombé woon ak jamono yi ki nga xam ne rek moom moo di président Ousmane ba Macky Sall euh, kon nag boo demee ba toog ci euh, sàppe gi ba toog ci kaw donkaase gi dossier yi mu daan génnee yëpp jamono biñ toll nii am na temps bu yaatoo yaatoo yaatu sax pour mën a expliquer Sénégalais yi lan moo xaw réellement maanaam exact lan moo xew ci biir dossier yooyu nga xam ne euh, dañ ko doon nëbbu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ñennat ci ay sénégalais mbir mi ni mel nag buñ ko waxee ñu bari seen xel dina am fu mu dem muy ñi nga xam ne dañoo luubal xaalis bu baree baree bari bu takkoo takk ay milliards lu ci mel ne fonds Covid 19 bi nga xam ne rek jamono bii ñu toll ni kii di président Bassirou Diomaye fay euh, mi ngi def la tout pour nag ñu daal di fas yéene euh, caytuwaat li nga xam ne moom moo ci aju woon ci fond Covid bi ndaxte tamit ay milliards milliards moom moo si i euh, daal di naax saay donte le nag am na ñu ciy topp wante ba jamono bii ñu toll nii ñi nga xam ne rek rapport yi ñoom lañ épinglé gun war nañoo daal di taxaw ci kanamu baar bi euh, pour rek mën a daal di indi ay leeral ci mbir minimel donte le nag ragal weddi du ragal <coughs> wante teggi tuuma la. Euh, comme ni ko olof yi di faral di waxee saa su nekk rek loolee tamit euh, moo valable jamono bi ñu toll nii ci ñi nga xam ne rek euh, dañ leen a daal di épingler ci jamono yi ñu toll nii mën nañoo jàpp que ne loolee bokkoon ci li nga xam ne moom moo gënoon fees di leen di jaajëfal ci topp gi safa gi ak faali seen chaîne YouTube Partout TV <coughs>